man sama live dama ne woon jigéen baax na sama live bu ma gisee jigéen sax day mel ni sama xol maanaam dañoo dañoo xar sama kii bi génnee sama xol. lu nu sonn sonn sonn ndeysaan duñ dem di di sàkku jigéen. Mhm. di ko violé non non déedéet. ñëwee ay Mamadou Malick Diop ma ne leen waaw man ay Mamadou Malick Diop ak yooyu ñu jox ma quoi ma gis ñu bind si dix quoi man sama jàng xawul demee loolu. Mhm. ma ne xam naa ne lii ay dix jours la quoi. Mamadou Malick Diop tëj nañ la dix ans guddi googu mu mel ni sama àdduna dafa tukki ñi nga xamante ñoom ñoo waxoon ñun ñoo def affaire bi ba pousse seen loxo di ñu jaay doole maanaam ñoom fekkee wuñ ko ñoom. a ngeen jëf amay téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di amaan mbégte jàkkaarloo waat ak yéen. di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci di ndokkeel képp kuy sénégalais ci fête bi nga xam ne fa lañu jëm muy sunu indépendance di 4 avril. di ñaan yàlla sunu borom may ñu fekkee ko ak jàmm di nuyu sunu kilifa di nekk sunu kilifa aada yi euh, tey nag ñu daral sunu benn frère muy koo xamante ni vraiment kenn dootu ko présenté mais rawatina ci réseaux sociaux yi euh, mu di Mady Diop nekk fii Medina frère dañ lay bàyyi nga nuyoo ñu lay suivre ci People 221. salaamaaleykum maa ngi nuyu waa Sénégal ñëpp. di nuyu kilifa diine kilifa aada yi di nuyu ñëpp di ñaan dëkk bi yàlla na fi jàmm am. amiin maa leen di bëggee bu wér a wér. merci. am na solo euh, frère ma euh, seetaan sa benn vidéo presque def na un an. dëgg boobu choqué ma choqué sénégalais yu bari aussi tamit. Euh, mën nga ma ñëwaatal ci vidéo boobu noonu naka la demee balaa may dugg ci sujet bi. nga doomu aadama boo gis maanaam siiw di jàmmi borom li ñuy naan siiw quoi nit ki li nga siiw. dina am ñu la bëgg am ñu la bañ. Mhm. sans comprendre fii laa nekkoon fi ma fii ma suñu kër. Mhm. di simb affaire yooyu mais yàlla may ma tur loolu fo ma dem ni ñi dañ may bëgg. ndeysaan léegi mooy commencé di simb fii jékki-jékki jóge fii dem asalem sa benn gaañ sax yaa ngi xoo ba saane naaj moo ma nekk ñëwal fii di simb affaire yooyu quoi si laa jógee fii dem foofu di simb nit ñi topp ma bëgg ma affaire yooyu maanaam nit foo dem rek. fekk fa koo xamante ni da lay bëgg. waaw ñëpp lay bëgg. Mhm. mais bi ma fa demee ki nga ne moom lay naan ñaambur moo doonoon gaynde gu mag bi moom moo fa nekkoon mais bi ma ñëwee man si lañ ci la maanaam dafa mel ni daal nit ñi man bu ma simbee dañuy ñëw bu ma simbul duñu waaw duñu ñëw daal affaire bi am buzz maadi maadi maadi am ah, xam naa affaire bi da na naqari. te amaana bu ma waxoon sax maadi toogal nga bàyyi sama groupe nga dem seen groupe. barke sëñ Fallou Mbacke ma toog billaay walaay taalaay. Mhm. mais mu commencé di def ay affaire moom ak benn gel xam rek ne mu ne gel bi da ne maa di moo la violé at booyam yi ñun quatre lañ xaw ma cinq mhm. te ñun tal ñu ñun nekk ñu si yooyu quoi ñun boo ñuy waxal xam nga lan gaynde yi. ay simba ay affaire yooyu nga ñuy waxal mais affaire jigéen moom ñun jigéen ñoo ñu bëggal seen bopp quoi ñoom yàlla daa dogal ñoom ñoo ñu bëggal seen bopp quoi. ñoom ñoo ñu sopp ñoo yëkkat seen alal du ñu may sa da xam ne ñii sax ñoom yaa ma gën a xam quoi jigéen ñi ñoo leen toppal seen bopp. Mm-hmm. léegi nag bu dee bi xam naa siisu affaire yooyu nag. wax ak gel bi après si la ñu fekkee yaraax lañ nekkoon di simba sax affaire yooyu quoi man na sama gars yi. booy ne ma ñàmbur moo ñu fa fekk yàlla na ko yàlla xare àjjana moo moom moo indi sax problème bi ñàmbur ci boppam. mais yàlla na ko yàlla xare àjjana. Hmm. affaire yooyu quoi. kaale wuyu police joxuñu ñu convocation joxuñu ñu plainte joxuñu ñu dara ma ne booy comme police moo ñu wax kaa dem kaa dem wuyu ji police xam naa dañuy wàññiloo simb côté bii quoi xam naa lool la. loolu ban année la. loolu su ma juumul 2010 la woon. 2010 waaw 2010. parce que man ñun ñu ngi daanu le 30 avril 2010. d' accord comme si 2010 bi la woon. d' accord sa yaa ngi comprendre avril la woon sax. Mhm. léegi nag si la ñëwee wax ñu ko ma ne booy kaa leen dem. booy yaay Salim ne foo leen di dem ma ne ko ah kii la nee na police moo ñu woo kon nañ dem wuy ji police quoi mu ne yéen ancienne convocation ma ne ko noo jox ñu ñu. convocation mu ne loolu est-ce la kaay leen wuy police ngeen war a simbal ay nit lekk xaalisu nit ñi ba kii quoi ma ne ko non garaaw la ñuy dem ñëwaat. parce que ñun xam nañ ñu defuñu dara yëguñu sax lu géej gi di riir mais da rek ñun loolu lañ doon doyee après bi ñëwee nuyu policiers yi asalam la woon sax ça y comprendre. Mhm. policiers yi nuyu naa ñu ñun de. waaw dañ ñu yéene ñu woo ñu ne ñu yéene ñan ma ne ko ñu ñooy gayndey affaire yooyu quoi mu ne booy jam waaye ba si kanam ñaam bu dugg si ne booy yi ñoo fi yéene woon gel bi xaw ma sa tur gel bi sax jàpp. Mhm. xaw ma ko. Mhm. barke Sëñ Fallu Mbàkke billaay walaay taalaay. Mhm. si noonu policiers yi nañ dugg leen. booy yi ne waaw mais li tax ñun kii ni policiers yi ne dem leen kii ñëw naan ñun la ñoo violé affaire yooyu quoi ma ne leen ah. defuñu kay kaay leen toog jàpp suñu ñàmbur. Mhm. ñun affaire ñàkk fayda yooyu ñun nekkuñu si xam naa daa ba ñu simb simb si tey quoi. Mhm. man loolu laa jàppoon sama xel. Mhm. xoolee policiers yi te téye ñu fa téye ñu fa ba am bàyyi vingt heures après yooyu man a ñibile mu ne yéen ñu ngi leen di viol. ma ko lan mooy viol mu ne ma viol. jógee mooy. viol maanaam mooy sàkku. nit te neexu ma ne ko saako nit a neex ko mooy la mu ne ma yéen ñii yëpp dañ leen jiin yéen a téye benn jigéen di ko saako ma ne ko mais yow est-ce que est-ce que wér nga quoi man dimension bi ma demee ma ne ko est-ce que yow wér nga ñun jigéen ñi topp ñu lan la ñuy doyee ki nga ne ñun ñoo ko violé quoi coow li bari policier bi na ma booy bàyyi bu suba. Mhm. affaire yooyu quoi nga commencé woote sama gars xam nga des fois dañuy ramasser violon bi ay ay nit quoi. Ah. des fois ñu yor téléphone foofu woote pour nit ñëw fayal la ku ñu ramasse wala genre yooyu. Mm-hmm. ma woote sama gàlle sama waa gàlle yi ñëw laajte affaire yooyu. Fatou mm-hmm. Ndiaye Rose tamit maa koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare aajana Fatou mm-hmm. Ndiaye Rose. moom tamit ñëw foofu. barke sëñ ay ñoom Fallou Ndoye Mbaye sama benn mag bu nekk Amérique ñoom ñëpp ñëw foofu laajte quoi. yooyu ñooñu lañ ñii viol leen di ji affaire yooyu quoi jàppal bàyyi. waaye du njaaroon ne leen ñii samay sët lañ ñii jigéen ñi ñoo leen topp mais ñoom doxuñu si yooyu quoi. Mhm. ci affaire u ñàkk fay la yooyu quoi. Mhm. chef bi ne leen mais garaawul lépp dinañ ko lijjanti quoi xool nun lan lan mooy problème bi. d'accord après noonu ñoom si la ñu tombé lundi la xaw ma ban jour ñu jël ñu mën a mën a tënku defee nañu avant loolu ñu téye ñu billaahi wallaahi taalaahi barki Alaaji Fàllu billaahi wallaahi dañoo téye ñun ñëpp juróom dañoo dóor dóor yoo xamante ne man dama lii mënul nekk dóor ba pare ne la signé par force dañoo signé loo maanaam yow lii da nga koy def par force xam nga booy signé da ngay xam li ngay signé. Mhm. ñu signé loo ñu par force si noonu si ñu yóbboo bi ñu yóbboo tribunal la ñuy yóbbu xam nga doo ñëw rek dem 100 mètres da ngay dem tribunal et cetera kees ga nga toog li jënti dossier ay booru guddi affaire yooyu képp ku nekk foofu doon a mandat siñeen signé nga mandat dépôt rek dañ lay yóbbu cent mètres après si lañ ñëwee ñu def ñu kan dem ranger ñun ñu da ngay ñëw da ngay futti comme ni la sa yaay juree sans comprendre futti la xool ndax yoroo drogue wala genre yooyu tamit man nangu naa loolu seen liggéey la sans comprendre bu ma ñëwee yóbbu ma mineur man ak sama benn boy Saliou Samb 12 maa ngi bu baax a baax maam Saliou. est-ce que c'est un comprendre yóbbu Samb 12 am ku dégg ni mi ngi si jeel bi nekk rek dina am koo xamante ne maanaam mun na la jege baa mu sa bokk baa mu dégg sa tur quoi c'est un ku ne ko sama benn rakk moo nekk foofu Mali après si noonu si lañ ma jëlee Samb 12 yóbbu Samb 4. def trois mois PC jóge PC dem fee Liberté 6. Mhm. Liberté 6 fa laa defee neuf quelque ci benn néeg. neuf ans waaw. bala maa ñëw ci neuf yooyu noonu. àtte euh, bi tribunal naka lañ la àttee. maanaam ñun dañuy dañuy taxaw pour àtte ñu quoi mais day am li renvoi de libéré. doo ñëw rek waaw ñu àtte la non déedéet renvoi de libéré moo am quoi. Mhm. parce que gel bi man xaw ma ko dèjà. bu ma ko xamee kon xamante nii bu baax xamante wu ma moom nii bu baax. Mhm. day romb nuyu ma na nga def ma ne ko ça va noonu loolu laa séq moom. mais moom dañ ko digal. maanaam ñaambur moo ko digal loolu quoi. Mhm. mais gel bi da ngay xam ni moom lii dañ ko ko digal. parce que li mu waxoon li mu wax li mu li mu njëkk a wax police ah xam loo wax dañ si police ngay waxee. ñu bind ko nii juge bi du ko gis ak ñëpp. Mhm. li mu waxoon fee ak li mu wax fee sax bokkul. ça ngeen comprendre. mais nit yàlla bu dogalee da nga war a ñëw kaso da nga ñëw kaso. Mhm. mënuñu si woon dara. ça mhm. ngeen comprendre barki sëñ Fallou Mbacke gel bi li mu wax fee sax ak li mu wax ak tribunal sax sa tax bokkul jegewul. Mhm. après juge bi laaj ko yow yaay xaw ma lan xaw ma sax turam ku jigéen ki yaay diw mu ne ko waaw mu ne ko kenn moo la violé taxaw na lu mat deux minutes xaw ma trois minutes di xool. maanaam xam naa ñaambur la doon xool mu ngi tourné di xool foofu noon affaire yooyu quoi ya gis bi gëdd ko quoi procureur bi ne ko eh, yow la ñuy waxal mu ne non guddi la woon affaire yooyu ma nekk ci benn gàllee xam nga rek da xam ne kii li muy wax sax yow munoo ne yow dañ la violé te ñi la violé même koñ bi fa la ñuy toog gàlle bi nga ne fa lañ la violé gàlle bi boo yuuxoo sax waa koñ bi ñëpp dégg gàlle asalem bi dafa xat. waaw loo wax rek day dem ci beneen gàlle. saa waay na ko mais asalem kër yi dañoo kii quoi xanaa nit ñi dégguñu la quoi mu ne noo yuuxu naaw ba sonn gis bi laaj ko ne ko après mu ne après monsieur laa demee suñu kër. nan lañ lay violé quatre personnes nan lañ lay violé nga jug yow doxal nank dem sa gàlle c' est yow loolu xoolal xoolal ma loolu quoi est ce que loolu. Mhm. yenu na maanaa. Mhm. loolu yenuwul maanaa tamit quoi. Mhm. après. ñu juge bi def ñu renvoi de libéré ñun xamal lan lañ xamee ni tëj nañ ñu biñ ñu renvoi de libéré ñuy xaar man pour man dañuy ñibbi parce que ba tey jàpp. li ma gëm. Mhm. man lu ma deful dama gëm ni lii damay ñibbi. après si la ñu ñëwee yaay Mamadou Malick Diop ma ne leen waaw man maay Mamadou Malick Diop affaire yooyu ñu jox ma quoi ma gis ñu bind si dix quoi man sama jàng xawul demee loolu. Mhm. ma xam naa ne lii ay dix jours la quoi. voilà wala ay dix ay dix semaines genre yooyu. ma ne gaañ bi xam naa ne li ñu fi jot a def lépp instant yi mooy loolu xam naa dix jours la mu ne ma noonu maa ngi Mamadou Malick Seck Mamadou Malick Diop tëj nañ le dix ans guddi googu ma mel ni sama àdduna dafa tukki ndax man période boobu noonu gisuma dara lu dul gis sunu waa kër sama waa Eh, nawet man sa fekk sama ki ma amal doom instant yooyu mi ngi tollu ci sama doom mi ngi toll lu ndaw. Mhm. maa ngi sama doom bug ko gis mais mënu ma gis sama doom doon doon liir sama liir bu xaw a tooy xem nii quoi. Mhm. yooyu yëpp nekk sama bopp bi moo ko xalaat ni sama papa gaañu na sama ay gaañu na sama maam moom instant mi ngi mag la quoi sans comprendre comme man instant yi man sama àdduna gën na tukki affaire yooyu quoi si la ñu jëlee fii yóbbu ñu. Liberté 6 bu ñu yóbboo Liberté 6 maa ngi nuyu tamit Alsaan si ñu koy naan Alex ay ñoom Papa njaay ay ñoom Palaay Fall ay Thier ñoom ñëpp ay Njóogu Bey ñoom ñëpp maa ngi nuyu waa politaase yi nekk foofu noonu. Mhm. foo dem di fa fekk ñu baax foo dem di nga fa fek ñu bon. Mhm. yàlla sàkkul ñëpp ñu bon. Mhm. sàkk ne ñii baax yow mun naa nga mun nga baax ma bon mun naa baax yow it nga bon yàlla mooy sax si laa foofu. rentré chambre 10 néeg bi ma lay wax def naa fa 9 ans et quelques te musuma jugee benn néeg foofu néeg boobu rek laa nekkoon. Mhm. fa lañ ma fa laa faree ije jàng fa alxuraan wàccee fa kaamil jàng fa xasida. Mhm. c'est de yàlla essaye en comprendre essaye en comprendre fa laa jàngee abajad ak yooyu farfa ije yooyu yëpp fa laa ko yàlla moom bu lay dimbali moom yàlla buy defar day mel ni luy yàq. Mm. parce que man bi may nekk fii ci xaw ma woon sax li yàlla wax si ci alxuraan xaw ma ci woon dara. Mm. mais fa laa jàngee sama diine jàng fa xasita jàng fa yëpp. d'accord affaire si laa jéeg-jéeg jugee foofu bi ma desee ay quelques mois ñu yóbbu ma Thiès ñoom tamit maa ngi leen di bëggee di leen nuyu waa cees mu nekkee Thiès to doo ñëw Thiès même pas deux jours trois jours si lañ ma génnee. si lañ ma génnee foofu nag may commencé di liggéey foofu. ma commencé di liggéey Thiès foofu noonu affaire yooyu quoi tamit man li may wax dafa ma ñor. maa ngi sant sam benn sam benn xarit. du ma ne sama xarit sax mais. sama rakk la sama xarit la. maa ngi moom li ñu magantee bëriwul muy Maas Mbay Maas booy bi bi ma nekkee 100 mètres mi ngi may seesi bi ma nekkee bi ma nekkee Liberté 6 mi ngi may sees bi ma nekkee Thiès mi may ñibbi si moo ma jël si ak Thiat sama gars yi ñoom ñëpp ñëpp ma waaye. d'accord waaw du ma ne Mass Mbaye nii ah, rek. xam naa dinaa ñëwaat foofu dinaa mais naka nga dundee loo xam ne jàpp nga ne yow dañu la accuser ñu tëj la ci pendant dix ans. Ah. waaw loolu ni ma ko dundee maanaam commencement bi dafa ma metti man sama live dama ne woon jigéen baax na sama live. dama loon man bi man déggoo dama ne woon man dama ne man dama boo sax day mel ni sama xol maanaam man dañoo dañoo xar sama kii bi génnee sama xol. ndax lan moo tax dama ne jigéen kon ndax jigéen jigéen baaxul quoi ci baat boobu nañ ma baal. nañ ma baal ci baat boobu quoi waxeewu ma ko. ngir kii mais maanaam li ma jot a dund quoi. Mm-hmm. jigéen moo ma ko teg. mais dama ne gara awul. Mhm. alsaan si bi may faral di ji ma jàngal ma commencé jàng abajad affaire yooyu quoi daa am benn paa bu baax xaw ma turam sax fàtte naa ko. Mhm. mais paa bu baaxoon la paa bi ma doon toog ñuy waxtaan affaire yooyu a mu may indiwaat mais li li tax man affaire bi jë maanaam dafa tuma ko kaa quoi. Mhm. muñ laa ko def mu ne ma ki ñu gëm ñu Serigne Touba sax teg nañ ko nattu. yow doo dara doomu aadama simple nga xale bu ndaw nga. lu gënoon bon nga dem ba doon mag. ñu indi la fii nga màggee sa âge boobu noonu. mais instant yow xale nga. gannaaw bi dugg foofu ban âge nga am. waaw instant est-ce que am ay dix neuf ans xaw ma ay dix neuf ans waaw. Ah. d'accord laa am doon booy. sans comprendre mais paa boobu nag moom la indi nag di ma naan àdduna képp ku yàlla. ku yàlla bëgg a dimbali foo mu jaarale la lii boo deful woon fi munoon na maanaam munoon nga dee wala nii mais lii moo tax ne dee quoi expliquer affaire yooyu quoi ma ne ko waaw coow coow amul benn problème après si laa commencé nag du ma tardé waxtu di julli rek foofu nag gars yi dañuy julli di jàng kaamil carrément dañuy julli chaque jeudi def suñuy ay cant affaire yooyu quoi Baye Fall Baye Daara yi foofu noonu. góor yàlla yi foofu borom Daara moo fa ñëwoon may ñu ay xiin Mbacke Balla ñu ngi koy ñaanal mu gudd fan ak am wér-gu-yaram dund cent onze ans. léegi nag ñu commencé nag di baax foofu ay xiin ak affaire yooyu quoi. Hmm. ma ne garaawul quoi lii xëñ na mën na ma indiwaat quoi mais fee dafa maanaam métti na benn peeru métti boo xamante ni boo gëmul yàlla. Hmm. boo gëmul yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mun nga jaay sa ngor. Mm-hmm. boo gëmul yàlla dëgg dëgg dëgg mun nga fa jaaree bon. Mm-hmm. am na ñoo xamante ne maanaam dañ leen tooñ yóbbu leen fa. Mm-hmm. mais li li leen tooñ yóbbu leen fa moo tax ñoom ñu doon rancunier bu bon. maanaam mun nañ tëral nit sax rendi la wala tëral nit sax def la loo xamante ne da ngay naan ñii est-ce que ça va mais amaana seen xol la ñu yàq. xol bi ñu yàq ci ñoom moo tax mënatuñu am maanaam. dara lu leen neex seen live mais tamit yàlla mooy dogal quoi yàlla mooy dogal est-ce que comprendre yàlla mooy dogal lu yàlla dogal rek dañ koy nangu dañuy gëm yàlla xam ne ñun ay doomu aadama la ñun duñ dara. d'accord léegi ma arrière tuuti ci cas bi. Hmm. maanaam euh, ndaw si moom moo la porte plainte wala waa ci boppam moo la porte plainte. ñun gisuñu porte plainte xam nga porte plainte maanaam mooy dañ lay bindal kayit ne la kaay wuy police barki Seydina Mohamed ak weeru koor bii ma woon comme yàlla naa fekk sama ñaari waajur yi ma bi may ne xale bu ndaw ndaw la samay waajur gaañu xaw ma leen sax. daa comprendre kon man du ma waatee sama waajur barki salaatul fatiha gisuñu kayit kayitu suukar sax gisuñu ko. Mhm. maanaam déggoo yaraax lañ ñu fekk ñuy simba. ñu ne ñu wuyu leen police ñun loolu lañ ci am ñu ñëw policiers dugal ñu foofu. d'accord d'après bi nga nekkee ci biir kaso bi. waaw ah. jékki-jékki ñun la ki leen fi dugal. Ah, gaañu na moment yooyu noonu nan ko dundee ak lan nga yëg. ndeysaan maa ngi nuyu waale benn yaay booy mimi ku baax la maanaam moom des fois dañu togg ay añ sax di ñu ko indil maanaam foo dem rek yàlla dina am. Mm-hmm. ku mu la booleel ku baax. waaw am ñun simba lañ xamante nii quoi. Mhm. mais dafa dem ba mel ni moom sama sër la. Mhm. doon togg añ di ko indi foofu noonu du kii. Eh, léegi nag mimi ñëw fa nag ma gis ko mu kon quoi man dama mën a seetlu doomu aadama ba nit ba sa sax tax may xaw a kii quoi. Mhm. ma ne ko yow mimi na naa tey ah kóol ngoo day affaire yooyu quoi nice. mu ne ma ñaambur moo gaañoo si saa sama xel bi ma kan mooy ñaambur ah mu ne maa yaa absenté ma ne ko kan moo gaañu nga mu ne ma ñaambur Njaay mu ne ah ok ñaambur Njaay moo gaañu kon quoi affaire bi daf ma metti parce que bugguma woon mu gaañu eh, li tax mu gaañu yàlla moo xam yàlla moo xam li tax moom mu ñaambur gaañu mm-hmm. ndax amaana ñun bu ñu génnoon ba fekk ko fi maanaam ñun dinañ delluwaat foofu mm-hmm. te du ko jar quoi. Mhm. mais li tax mu gaañ xëy na yàlla. barki Seydina Mohamed billahi ak weeru koor bi ñun doon doon toog maanaam suñu xel xam nga ci lan lay dem bu ñu génnee kan lay ku ñuy njëkk a ñàmbur rek ñun ñun ñun suñu bopp ñun ñoo koy fekk ba biir gàllem fi mu nekk moom. Mhm. maanaam ñun tëdd nañ kaso de mais moom laay fam dootul baaxati. Mhm. xam nga boo doonee xale. ñu def la teel a def lu la metti ki la ko def yow boo ko gisee. boo ragalul yàlla dëgg dëgg dëgg yow ñu nga ko def ko lu ñaaw. ñun mm-hmm. fa lañ toll woon. Mm-hmm. mu ne baal leen ko affaire yooyu ko mu ne ko lan lañ koy baale kooku du ma ko sax jege ba koy baal. Mm-hmm. maanaam bu buñ ma bàyyi woon benn cinq minutes at kooram nga xam ne sama xol bi bon affaire yooyu quoi mu may dëfal bàyyi yooyu ma dugg ko wax booy booy gëmuñu ma. booy na ma noonu du dégg affaire yooyu. jékki-jékki sam booy bi Saliou yaay ji ñëw wax ko quoi. parce que ñun dañoo tooñ tooñ bu méttee métti métti la ñu tooñ. Mhm. affaire yooyu quoi. Mhm. mais waa asalem bi commencement bi ñoom dañu doon xeex ndax ñaambul fépp lay dem waa ñaambul sa booy ñoom ñoo ko def ni xam nga nit foo mhm. yàqkat bu xësee boo doon yàqkat rek. yal na yàlla xaare àjjana nit du gaañ sax ngay wax ci moom. dara lu ñaaw. sans comprendre. dem fu mu toog booy lii ñoo ko def booy lii wala di yàq suñu der mm-hmm. ba waa ñu bari am nañ du ñëpp quoi ñu bari naan booy gaynde yi ñoom la ñii ñii mm-hmm. mais après lañ comprendre ni kon ñaambur moom moo def affaire bi moo gel bi. d'accord parce que après si la wax yu bari commencé toog. Mm-hmm. ñu wax yi di ñëw ba foofu ñun ñu koy dégg xam li ñu xam parce que ñun xam nañ ñu defuñu defuñu quoi. d'accord. bi nga duggee ci biir jeel bi sa cadre famille comme yaa ngi wax léegi ni da ñàkk papa ñàkk yaay. Mhm. yal na leen yàlla yërëm. Euh, moment yooyu nan nga ko dundee ak sa cadre famille parce que des fois di nga toll moment yoo xam ne des fois jàpp ne da wéet. waaw di nuyu sam benn mag bu nekk Espagne sam benn mag bu jigéen ndey coono yi maa ngi koy nuyu bu baax a baax kooku dafa meloon ni mooy sama yaay. gaasuñu waa kër ñoom ñëpp ñu ngi ma doon seet si ñu ngi ma doon indi lekk ñu ngi ma defaral seetaan ñu ma benn yoon. mais kooku li mu def ci man amul keneen ku def ci man loolu c'est incomprendre maanaam ndekki moom mu koy indil ay reer day war a dem defi ji dara sax wa maanaam dem moom da doon fecc bale quoi ci kii. waaw dafay war a fecc ji sax. ma xam ne kii daf man maa ko nar yàqal fecc ma ne ko ndey mu ne ma man góor yàlla laa te ñi fi nekk ñëpp ay góor yàlla lañ te képp ku fi nekk rek. am na ñoo xam ne seen waa kër yi ñu ngi leen di seet am ñoo xam ne seetuñu leen. Mm-hmm. mais am ñoo xam ñu ngi togg di ko indi ñeneen di si xéewlu ko ñooñu gënuma leen. Mm-hmm. jour tel tel tel dee ko bàyyi ko man mun naa xéewlu ci gars yi fii. Mm-hmm. Saliou moom ñoo bokk nekk ak Mansour kon seen añ bu ñëwee rek mel ni ne sama añ moo ñëw. parce que instant dafa amoon contrat war a dem te xam naa ni kii bu ma ko bu ma ci waxul rek. du dem quoi laa ko ne nag. même boo boo amee yoon sax demal demal moo gën. d'accord euh, d'après bi nga génnee après. sa diggante ak ndaw si. ba xam yéen a ngi doon gisante wala demalante ak dikkalante am ma wala moom ñenn ci ay famem jàpp ñëw nañu baalu la àq wala. ndeysaan ñun dañoo tegle maanaam dañoo tegle bi ñu am gaañoo maanaam bi ñu am gaañoo lañ ñu commencé tegleel maanaam ñu bokkoon ñu ñu. ñi nga xamante ni ñoom ñoo waxoon ñun ñoo def bi ba pousse seen loxo di ñu jaay loole maanaam ñoom fekkee wuñ ko ñoom. Mhm. fekkee wuñ ko ça veut dire. waaw maanaam bu ñaambul deewee semaine bi bàjjenu gel bi dee keneen dee keneen dee du ma tudd tur ko du ma wax. non déedéet waaw. mais ñoom xam nañ ñu dee ñu doon àtte am na am na ku si dee. c'est un compte doon àtte benn juge bi dafa dee dafa gaañu yàlla na ko yàlla xare na amiin tudduma tur nag waxuma tur kenn. non dëgg la. ça en comprendre. Mhm. ñun dañoo ji ñi ñun ñoo def ñu doon kaat ñu tëj ñu ci ay xale yu ndaw maanaam ki ñaatee at ki ñu ko jiiñ ak keneen ak keneen ñoom fekkee wuñ ko te amaana ñoom bu ñu xamoon ñoom dañuy dugal ba pare ñoom suñu ginnaaw la ñu gaañoo comme ñoom duñ ko mus a def. Mhm. xëy na yàlla moo dogaloon ñun suñuy jaar-jaar si seen loxo lay jaar. mënuñu mhm. sax sëñ Touba sax tubaab bi sax dafa tegoon ni moom moom mooy yóbbu sëñ Touba moo koy teg lu metti te amaana yàllaa dogal moo jaar jaar sëñ Touba ci loxoom lay kii. mais mënut mhm. maanaam mission moom la rek. am na solo dara. c'est mhm. comprendre. àdduna da ngay yàlla xam ne lii lii la. amoon nga ci relation wala ñëw na baalu la. ñun musuma gis ndaw si fi mu ñëwee. fi mu ñëwee la ndaw si ngay wax noonu du ma tudd tur. non déedéet bu ma xasee ba bàyyi bàyyi naa bu ma mm-hmm. xasee ba jàpp naa. Mm-hmm. mais da doon wax ay nit. Mm-hmm. ñii de dama leen tooñ mooy li ma la wax waxu suuf si yooyu après si la commencé. jub ñaambir gaañoo ci la lépp kalaate. wóor bi di wax ak ay booy booy yooyu ñëw di ñu ko wax. comme yéen ndaxte defoo leen dara quoi. gel bi nee na ñaambur moo ko dégg ma ne leen yéen xanaa da ngeen dof. Mhm. xanaa da ngeen dof yàgg nañ leen wax defuñu dara. ngeen bugg ngeen bàyyi ba heure bi ñaan leen comme ni defoo woo leen. Mhm. dara. Mhm. te ñun ay ay même bu dee ay booy lañ woon sax. am na ñun jomm nañ ko ñun am nañ ay sœur am nañ ay mag yu jigéen am nañ ay rakk yu jigéen maanaam. lu nu sonn sonn sonn dem di di saaku jigéen. Mhm. di ko violé non non déedéet. Mhm. ay góor yàlla lañ. xam na ni même boo sonnee ba sonn sax xam nga fi nga war a dem sax même bu la ngay génnee sa xaalis joxe di nga ko joxe. Mhm. maanaam li nga sonn nga def ko. mais ñu ma gën a metti maanaam man buñ ma waxoon maa di yaa def lii wala yaa def lee sax garaaw mais maanaam lu gën a làmb ci sama côté maanaam nañ ma baal ci wax jooju maanaam jigéen ñi dañ maanaam dañ ma bëgg benn peeru bëgg boo xamante ne. maanaam jamono jooju maanaam da naan kii si si mbékat kii mooy seen waaxli. Hmm. wala kii mooy seen Sidy Diop est-ce que yaa ngi comprendre. maanaam nit ñi bëgg nañ ma benn beeru bëgg boo xamante ne pour ma am ay jigéen ñi daa yomb ci man quoi. d'accord léegi d'après nga tëdd dix ans prison. Ah. Ah, nga jékki-jékki génn ñu libéré la. Mm-hmm. nga jékki-jékki xam ni man mii kat defuma dara. Mm-hmm. dëgg gi feeñ. dëgg la après moment yooyu nan nga ko dundee. parce que sama xol neexul moment yooyu sama xol neexul moment yooyu parce que nit ku nekk buñ la jiiñee loo deful ba yàlla àtte nga xam sa xol du mës a neex da ngay muñ quoi mais après da ngay génnee gis say famille yow lu bari da nga koy fàtte. maanaam man doom aadama laa jullit laa bëgguma di topp rànkiñee bu ma toppoon rànkiñee mun naa génne ne a ah, damay doon agresseur bu mag dix ans laa tëdd kon man du ma ragal agresseur ay doon mais yooyu amul sens fii kenn du fi ragal def lu bon amul sens mhm. nit ki da ngay ñaan yàlla doon nit ku baax mhm. ay doom suñu yaay yi dañoo baax suñu papa yi dañoo baax comme ñun dañuy ñaan yàlla doon ay nit yu baax du roy ci nit ñu baax ñu ñun mhm. mais bugguñu génne rek yoruñu xam nga des fois boo génnee benn côté day metti ñun période bi ñuy génn xaw ma corona la xaw ma lu mu kii période boobu dafa metti woon bu ñuy génn. Mhm. affaire yooyu essayer comprendre. Mhm. yàlla mooy dogal. Mhm. ñuy muñ quoi te xam ni yàlla lu mu dogal rek. noonu la ko si la ma gars yu bari sama gars yi dee leen maa di dee génn di tëgg affaire yooyu quoi parce que man ma génn. man bi ma génnee suñu kër rek laa yem mbenn mi sax ko génne ndax sama xol maanaam moment boobu sama neexul. après ginnaaw bi nga génnee dix ans nga def ko prison du ñàkk booy génn état dina am taxawaay boo xam ne dina ko am ci yow. comme ku lay accompagner genre. non man état deful ci man dara moom. man sunu waa kër yi de ñoo may dimbali ak sama yaay jooju faatu Guewel Diouf ku baax la. Mhm. moom ak sama yaay ñoo doon ànd. depuis temps booy Fatou Guewel salaatul Fatiha da doon togg lekk di ko indi bool nga ngandim bool bu rëy rëy di ko indi ba cees di ma jàppale Fatou Guewel Diouf maa ngi koy ñaanal lu mu bëgg yàlla na ko yàlla defaral. mais comme ay état yooyu nga may wax moom wax fa dëgg yàlla moom état moom gisuma ko quoi. d'accord ban jàngat nga amee ci côté juge maanaam sa juge sa sa sa su dëkk ban jàngat nga am ci ñoom. waaw sama justice dëkk xam nga ku nekk ñaan nga yàlla ñu ne la sa justice su dëkk. moo gën si justice xaw ma justice la xaw ma maanaam moo moo moo ci gën mhm. man loolu laa leen di ñaanal mais man ndaysaan beneen yontee bu ñuy atteeti quoi nañuy xoolaat ku dul juum amul ku dul juum amul du ma leen nag lu ñuy baaxul du ma leen lu ñuy attee baax na mais bu ñuy defati dara ñoom nañ ko xool di ko xoolaat quoi ku dul juum amul ñoom ay doomu aadama lañ comme ñun di le ñaanal di leen ñaan quoi ñoom maanaam balaa ñoo defati dara nañuy xool kii doomu aadama yi parce que ñun ay doomu aadama lañ nit sax mun na la bañ sax dem taxal la policiers yi tamit maanaam bu ñuy wax ak nit pour muy war a signé ak yooyu maanaam buñ ko di dóor buñ ko di gëdd wax yu neex sarax la li nga bëgg li nga ko am ci moom te en tant que mun na bañ a def dara sax nga téye ko dóor ko ba gaañ ko maanaam amaana bu nangoo sax ci la mu nangoo yow yaa ko ci dóor yaa ko ca gaañ. mu yaakaar ni da nga koy rey. Hmm. fa ko waxee quoi comme ñun luñ dal dóor nañ ñu signé loo ñu par force. d'accord am na solo euh, tey kontaan naa ci jàkkaarloo ak yow tey boo message boo xam ne da koy lancé euh, sa mbokku ndaw ñi lan lay doon. waaw sama mbokku ndaw yi li ma leen di lancé maanaam ñuy moytu fi ragal amu fi tapet amu fi maanaam moytu dafa baax. ku ñu mën a dimbali nañ ko dimbali ku ñu mën a jàppale nañ ko jàppale te bañ di xeebaate xeebaate tamit baaxul c'est incompréhensible xeebaate baaxul. Waly Seck tamit doon sama frère parce que moom papam ak sama yaay ñoo bokk ndey bàyyi Waly tamit moom seetaanu ma. Waly moom ku baax la. baax mm-hmm. sëñ Fallou Mbacke. Mm-hmm. sama grand ñoom Zou Mbaye ñoom Aziz parce que sëñ Fallou Mbacke suñu waa kër ñoom ñëpp maa ngi leen di bëggee bu wér a wér a wér mhm. ak sama xarit yi nga xam ne di simbandoo ak sama benn grand bu baax Ndiaye Rambo. Ndiaye waaw Ndiaye Rambo kooku ku baax la. <laughs> moom njëkk yóbbu tëngee. sunu consultant. waaw kooku dafa kooku góor yàlla la. <laughs> Ndiaye dafa baax baax taalibe état moom gisuma mu dimbali ma gisuma keneen dimbali ma. d'accord mais tey ban dimbal ngay xaar ak ñi nga xamante ni tey ñu ngi jàkkaarloo ak yow di la seetaan. waaw waaw man dimbal ci wàllu aar parce que tey ji li nga wax nekk ci aar juddoo ci màggee ci yaroo ci. dëgg la léegi ndog dog dal la nga tëdd dix ans tey boo génnaatee. dëgg la du ñàkk di nga am loo xam ne danga koy soxla. waaw waaw man li ma soxla ci aar bari na parce que dama génnaat di tëgg comme sama morom mi ni ñu ko doon def dara fàttewu ma ko. Mhm. fàttewu ma tëgg nii quoi maa ngi tëgg nii bu baax di ànd sama gars yi di joué si soirée sénégalaise yeeg yooyu yëpp di tëgg ji. di nuyu sama gars sama xarit El Hadj Keita maa ngi koy nuyu ay ñoom Sori Ba ñoom ñëpp ay Assane Bongo ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. mais bëgg naa ku ma mën a jàppale te yàlla tax nga jàppale ma te yàlla tax quoi parce que man aar lay dund. Mhm. dund ma leneen ñaan naa yàlla jóge fii dem kaaw baak fu ne ciaar man loolu laay rêvé yooyu quoi ku ma mën a dimbali nag ma dimbali parce que mënoon naa génn bon yàllaa ma dimbali maa ngi génn baax nekk suñu kër sama génn bariwul sama dox bariwul tëgg ji laay def ñëw tëddaat nelaw jàpp sama ñàmbur mhm. loolu daal maa ngi koy dund mhm. ma nag mhm. parce que sëñ Fallou Mbacke ku ma mën a dimbali na nga ma dimbali te yàlla tax. am na solo waaw am na solo am na solo. ok euh, mu ngi noonu ah moom laa dalaloon fii mu di maa di Diop vraiment di wax ñi nga xamante ne ñoo ñu suivre ah ku ko mën a jàppale na ko jàppale parce que ndaw waxuma la dara rek waaye ñàkk ndey ak baay daanaka doy na nattu. donte ci programme sunu borom la nga jógee fa yàlla sunu borom teg la nattu nga tëddaat dix ans. dëgg la mi nga xamante ne musuma dugg kii. du sama mbaax du sama bon. dëgg la samay waajur laa ñàkk rek dèjà man sama laay fi mu dara safatuma ci. dëgg la nag nga boole ci tëdd 10 ans. mais li ñuy wax rek dëkk ba neex boo gis yoon ba day diis en ñu ngi lay jaajëfal di la encouragé di la wax ni mag ñi baax ñëpp jaar nañ fi di la encouragé bu baax a baax yàlla may na la xol muñ nga toogaat fii continué waat sa liggéey jàppaat sa ñàmbur incha allah du ñàkk ñi nga xamante ñoo ñuy suivre fii ci people 221 ci teg loxo incha allah rabbi ba nga gis ci sa bopp borom kontaan naa frère waaw maa di leen jox yeneen dig daje ci